sëñ bi Talla Fall maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay di di kontaan ci euh, invitation bi. yow yaay directeur communication bu académie génération foot ñu waxtaanee d' abord jongante bi ñu dund démb diggante Sénégal ak Eswatini daanaka gaynde dañ ci mujj mucc am ci match nul ku ci nekk dugal sa morom benn ban jàngat nga def ci jongante bi. waaw jongante bi liñ ci jot a gis mooy daal vraiment am nañ ci déception. waaw parce que boo xoolee ci ñaari match yu ñu jot a joué benn but lañ ci dugal. donc euh, benn but bu toll ni équipe bu Sénégal bu dajeeg Congo bu dajeeg euh, Eswatini donc yaakaaroon nañ ci leneen lu dul score bu mel nii surtout que sax euh, bi xaw nañ ci frole frôler défaite mais yàlla suturaal nañu vraiment ba loolu mu jëwul am parce que doon na ñaaw trop vraiment ñu toog ñu naan kan moo gagné Sénégal dëkkam. ñu naan Eswatini ñu ne ñooñu fan lañ nekk ci adduna hmm. waaw club boo xa euh, dëkk boo xam ne mooy cent cinquantième mondial je crois. Hmm. alors que Sénégal mooy vingtième. Hmm. donc euh, mondial donc di premier en Afrique. et donc loolu aussi tamit doon na def tâche d'huile ci vraiment progression équipe bi. ci équipe bi ñu gis tamit euh, li jur ci ñaari match yëpp bokk na ci système bi Aliou indi 3 cinq 2 ndax boobu jàpp nga ni baax na pour équipe bi ndax méngoo na ak équipe bu ñu yor. waa man loolu xam naa dinaa bett ñu bare ci euh, sama position parce que man dama ko gëm man dama gëm ne équipe dafa war a mën a am plusieurs possibilités donc war nga mën a jouer ci 4-4-2 mën nga war a jouer ci 4-3-3 mën nga war a jouer ci 3-5-2 tout ci circonstances yi nga xam ne ci ngay toll ci match. parce que équipe bu nekk dangay am sa conception stratégique ñëw moom ba ci match boo ñëwee ba ci match nga dajeek leneen donc ñu indil la beneen équation équation boobu da nga ko war a mën a résoudre dans les plus brefs délais da nga war a gaaw jël décision ne lii kat suñ ko defee dañu nar a perte lii kat suñ ko defee naru ñu gagné donc à partir de ce moment da ngay gaaw ci réagir daal di def li nga xam ne moo la ci war a mën a génnee donc trois cinq deux boobu pour man possibilité la du loo xam ne euh, warul mën a nekk parce que équipe di nga toll ci diggante boo xam ne parfois loolu da koy adopté mm-hmm. ci jàngat bu gàtt man xool naa équipe bu Sénégal u 2017 ñu joué ko Coupe d'Afrique ak Cameroun Cheikh Mbengue gaañu ñu yaakaar ne waa ji dina jël risque dugal Ismaïla Sarr parce que ñun ñoo war a mën a gagné. Mhm. entraîneur u Cameroun na ñu yëgal avant quarante huit heures soixante douze heures avant nañu sax yéen yéen laay jox bal bi yéen laa koy bàyyi parce que duma leen gaaw a attaqué mukk parce que su ma leen attaqué li ngeen am seen kanam da ngeen may duma. Mhm. duma sax taxaw. donc ñu gis ne ci jamono jooju boo bëggee gis ku mel ni euh, Barcelone bi muy def remontada contre Paris Saint-Germain. mais dañ jël ay risques jouer trois cinq deux dem attaqué waa ji am densité au milieu de terrain mais tactique encore une fois nit ñi bu ñu jàpp rek ci entraîneur bi kese la ñu ngi nekk aussi tamit ci comportement joueur yi hmm. ci biir terrain bi ci respect des consignes xam nga indiscipline tactique dafay am yow ñu yam loolu fii taxawal fii xaar bal bi fii nekkal ci zone bi nga ne non da ngay dézoné da ngay génn foofu dem ci beneen zone mais da ngay indi embouteillage ci yenn partie ci terrain bi hmm. donc loolu du rôlu sélectionneur bi encore que am na sélectionneur yoo xam ne boo ko defee seen équipe wala entraîneur yoo xam ne boo ko defee seen équipe ñu génnee la ci biti ne la demal toog parce que man doo doo du yow yaay patron bi man maay patron hmm. sama sama tactique lii laa ci bëgg lii nga ma koy defalee parce que boo xoolee ci yenn comportement joueurs yi seen équipe dañuy respecter placement bi ñu leen di demander ci terrain bi mais bu ñu ñëwee équipe nationale dañuy am beneen costaaru ne man peut-être la donc man mën naa ñëw jël bal bi ci défense yéegee ko éliminer deux def nii def ñële mais yooyu yëpp ci discours entraîneur daf ci am solo. ñu gis ni ci groupe bi daf ko yaataloon bëri lool ay ndaw yi nga xamante ne bees lañ ci bokk na ci sax ay Abdou Diallo Nampalys Mendy Ballo Touré ak ñoom Sima nan nga jàngatee nan nga apprécier seen prestation yu njëkk. prestation bi ma ci njëkk am mooy que tey dañu am ay joueurs yoo xam ne ils sont capables de jouer au ballon. dañu war a mën a football. parce que dañu baax techniquement dañu am niveau. te niveau technique boo ko xoolee. seen ay déchets techniques. li ñu ciy gome du bare. parce que mën nañ lu ñuy def. donc loolu boo ko amee profilu joueur yooyu mais man man du ma hésiter pour jouer le 3-5-2 parce que je veux avoir de la possession ah parce que il faut comprendre dans l'esprit d'Alioune le sélectionneur mhm. que ne loolu bu ko defee dafa bëgg a am densité au milieu de terrain pour mën a am bal bi loo xam ne mosu ko xalaat gis nga système boobu mosoon na ko créer match de préparation du Sénégal doon jouer au Havre gis nga ci couloir gauche bi mhm. Djilabodji moo doon jouer ak Armand Traoré parce que man match boobu fekk dama demoon seetaani ji ko Havre pour xool réellement prestation Sénégal parce que déggoon naa ne waa ji dafay annoncé ne dafa bëgg a essayer benn tactique bu muy trois cinq deux boobu mais lu tax mu jéew ko yeggali bari woon na ci ay mésentente entre Armand Pape Papis ji xam nga ñoom ñoo doo boo doon gis am na ci ñoo xam ne affaire bi c'était pas huilé hmm. xam naa mu ne lii soxlawul ma ci insister mais tey profilu joueur yi mu am très honnêtement et je marche damay wax de manière objective mmh. moi je crois en ce système là parce que am nañu profilu joueur yoo xam ne capable de pouvoir jouer à ce niveau mën nañ ko am nañ ko parce que boo xoolee gabarit yi ñu yore du ñoo ñu ñoo mën di def ay kick and rush jàpp bal sandi box to box déedéet joueurs yi ñu am tey mën nañu jàpp joxante. Mhm. boo jëlee Crépin mën na jox Pape Matar Pape Matar mën na jox gànna Gana mën na jox euh, Nampalis Nampalis mën na jox Sadio ci kanam dafa doon loo xam ne choix la boo xam ne mën nañ ko mën nañ ko parfaire ah. il suffit que joueurs yi ci seen bopp ku nekk respecté say consignes. taxaw fi nga war a taxaw. ki la war a defal transmission bi mu jox la ko. bal bi su waree transité ci Pape Pape tànku Pape Matar pour yegg ci Sadio. dafay dafa war a jaar ci moom. Hmm. jóge ci Nampalis dem ci Pape jóge ci Pape Matar parce que am nañu qualité de joueur yoo xam ne sur le plan technique. Hmm. avant dañ daan am ay joueurs de grand gabarit. milieu terrain da nga naan gis milieu terrain boo xam ne da nga naan am Alfred am Cheikhou mais ñooñu c'est pas des joueurs qui jouent à la baballe. Hmm. mënuñu ko duñ ko def. alors ñoom box to box la ñu tàmmoon. tey nag bu ñu amee jour yu mel nii war nañu mën a essayer système bu mel nii. Hmm. ñu yaakaaroon ko gisaat euh, gannaaw li mu wane contre Congo di Pape Matar Sarr waaye mujj gi kon ci banc bi la nekk waaye li mu wane euh, ba ñu ko woolee gulat ci équipe nationale ndax loolu dalal na seen xel waa génération foot nga xamante ne yéen a ko tàggat. waaw mais xam nga loolu yëpp mooy wane ne formation rek ay mujj. Hmm. parce que tey boo xoolee écartu Pape Matar ak Sadio Mané y a dix ans Sadio bi mu demee c'était en deux mille dix. Pape Matar mi ngi dem en deux mille vingt ou deux mille vingt et un waaw. donc boo xoolee loolu rek war nga mën a gëm ne formation rek ay dëgg. waaw boo formé liggéey di nga am ay joueurs parce que diggante Sadio ak Pape Matar y a dix ans. Mhm. tey ñu mën a dajawaat équipe nationale Pape Matar di jouer di passe Sadio Mané alors que boobu ba muy nekk xale mi ngi seetaan Sadio Mané. Mhm. di di rêvé naan waaye bés bu ma yàlla mayee ba ma mel ni Sadio te tey. Mhm. daje naa ak moom équipe nationale yàlla mën na def sax mes fële ba dem di jouer ji ay Ligue Europa wala mën a daje ak Liverpool. Mhm. donc pour dire que ne satisfaction biñ ci mën a am mooy euh, président Madi visionnaire la ci wàll boobu. parce que projet boobu ñi ko gëmoon barewul. boo xoolee période ñoom saajo ñun dañ doon dëkk Bambilor loué fa kër mais hébergement yi pareegul hmm. ñoom Pape Matar ñoom seen génération ñoom ñoo ñëw fekk terrain yeeg hébergement yeeg salle de musculation yeeg yëpp pare hmm. alors que ñoom saajo loolu yëpp jotuñu ko fekkee ñoom terrain yi rek lañu fekkoon mu pare donc mooy wane ne liggéey boo liggéeyee rek sunu borom dina la ci fekk si. ñu amoon yaakaar lool ci euh, li mu wane ci joŋante bu njëkk bi Abdou Diallo nga xamante ne moom tamit gulet ñu woolu ko ñu doon yaakaar ni xëy na dinañ leen gis ñu boolo ak euh, Koulibaly ci axe bi nagam amagul waaye bu waree amit ban yaakaar nga am ci boobu boobule association. man de rêve la. rêve mooy que am défense boo xam ne Pape Abdou Diallo am. Euh, Kalidou Koulibaly, Amsabali nous jouer à son vrai poste, mm -hmm. donc de latéral droit. Mm Parce que latéral, wala défenseur du gaaw a xalangu rek défenseur dafa war a taxaw ci ay tànkam. Mhm. warul di mën di taakale fu mu toll. man Ousseynou loolu laa koy reproché Ousseynou ci défenseur dafay xalangu trop loolu loolu du du défenseur. te dafa gaaw jël carton. da ngay jël carton. loolu moo koy indi défenseur da nga war a taxaw. da nga war a taxaw défenseur day taxaw hmm. da ngay nangu duel da ngay nangu def épreuve mais doo ko wekk ci tacle parce que tacle mooy doon dernier recours hmm. ci acte défensif hmm. dernier recours mooy ko boobu amatuloo pexe nga tàllal sa tànk waaw mais da nga war a taxaw nekk sur tes gardes nekk sur tes xam nga am appui yu baax moo tax ma ne défense boobu suñu ko yàlla ne may xam naa ne vraiment parce que lu ku gis Abdou Diallo mu ngi joué Paris Saint-Germain. Mm-hmm. Kalidou mu ngi joué. Sabali bu gaañuwulee mooy joué Bordeaux. Mm-hmm. donc am na ci yoo xam ne vraiment da nga naan lii mën naa ci rêver. Mm-hmm. am ay joueurs ci milieu terrain boo xam ne c'est des garçons joueurs. yoo xam ne dañuy jàpp di joxante. donc relance bi day yomb. transmission yi day yomb. parce que mobilité rek la bu boobaa di laaj mobilité. mobilité ku nekk di laaj dans l'espace di def ay appel contre appel di def ay faux appel et tout hmm. loolu suñ ko amee parce que ay petit gabarit lañ yore et donc ça doit pouvoir se faire lu war a mën a nekk la hmm. et je pense que ne loolu buñ ko yeggee dinañu gis Sénégal boo xam ne dinañu régaler hmm. parce que ñooñu ñëpp am nañu technicité boo xam ne koo ci jox pal bi mën na ci def lu ko neex il y aura moins de déchets sur le jeu deux mille vingt deux suñu mbëbët mooy jël ndam li moo yàgg nekk sax suñu mbëbët waaye ndax li nga gis euh, ba tey fii dalal na sa xel. dalal na sama xel parce que équipe boo gis mën na ci am yaakaar parce que ci wàllu liggéey ci wàllu joueur yi nga xam ne ñoom ñoo war a mën a def dem ci jongante yi parce que am nañu qualité joueur yoo xam ne tey bu fekkee ne xar nañ ci seen tànk tubéy mën nañ ci am lu ne. parce que man du ma rêvé man dama dama gëm football te joueurs ñu am léegi am na ci ñoo xam ne très honnêtement euh, bu fekkee ne am na investissement total parce que équipe aussi tamit li koy déterminer équipe bu baax équipe bu mag mooy attitude joueurs yi seen comportement seen engagement seen détermination loolu mooy mooy def caractéristique gu les grandes équipes boo xoolee Brésil dafa daan am ci Brésilu quatre-vingt-deux quatre-vingt-six entraîneur boobu Télé Santana c'était un adepte du football offensif. Mm-hmm. match nul la sax nga qualifié ñu ne non non non non ñoom dañu war a gagné ba perte toog éliminer leen te équipe bu Brésil boobu bu 82 86 amul équipe bu ko gënoon a rëy mais dañ leen éliminer donc pour dire que ne parfois dina am ay ay ay ay génération joueur ay génération équipe yoo xam ne parfois li leen di manqué. mooy un peu de maturité et d'humilité parce que da nga naan toujours kii waruma gagner certes mais à défaut tournoi aussi tamit dañ koy mën a gérer c'est important ñu jeexale ko ak euh, football ci biir réew mi génération foot bi nga xamante ne bokk nga ci ñi ko jiite ñu mel ni ñu yeewu léegi ci championnat bi ñu ngi sax ci ñetteelu place bi benn poñ dox seen diggante ak Tëngéej lan moo waral réaction bi ngeen am léegi. waaw mais xam nga lii du lu bett du lu ñu bett ñun suñu wàllu bopp. parce que tey euh, jamono ji daaw bi ñuy wax waxu play off play down wax nañ ci lu ne. Hmm. dégg nañ ci lu ne. man sax dem naa ba ñu ne ma sax finalement dañ lay yóbbu xaw ma lan xaw ma comité xaw ma nu ñu ko tuddee. bonne gouvernance xaw ma non non non non non. gouvernance et d'éthique xaw ma lan. comme ah. benn voilà mais du du discipline discipline amu ci parce que discipline mooy ki nga xam ne. dafa saaga wala dafa wax nit loo xam ne du dëgg mais man li ma doon wax dara dara dara jalgatiwu ma kenn saaguma kenn waxuma kenn lu ñaaw tooñu ma kenn dama joxe sama avis ci dara ñu ne ma non loolu ci bonne gouvernance ak xawma lan éthique des membres xawma lan lañ ko tuddee daal noonu hmm. ba jàllale ko hmm. donc moo tax ma ne ci ci ci jamono jooju waxtu wi nit ñaa ngi doon yëngatu lu bare sax ci wàllu boobu mais nous on a tenu bon parce que c'est l'occasion de saluer Djiby de le de, de féliciter le staff mmh. parce que daaw heure bii ñu ngi koy rappelé keroog ci benn conférence de presse am naan nit ñi wax nañ ko ci lu ne est-ce que sax waro démissionner te pourtant effectif bi mu amoon dafa nekkoon effectif bi une bonne partie on a lâché beaucoup de jeunes hmm. qui sont partis ailleurs mais ni ñemee liggéey ak ay xale yoo xam ne ñu ngi door a jouer première division pour dire que ne entraîneur boo ko joxee temps bi ci war pour mu defaraat équipe bam toogaat def recrutement am xool xale yi nga xam ne ci ñoom la yaakaar pour mën a liggéey mën na def lu ne parce que ci moment yooyu daaw ñi ñaa naan da nga war a démissionner ñi ngi naan dañ ko war a limoger te loolu yëpp dara amu ci woon parce que président Madi ci wàllu boppam daf na ma fii lañ koy bàyyi bu ñuy wàcc deuxième division ak moom sax dina fi wàcc hmm. parce que man xam naa ne liggéeykat la mën na li muy def mais ku ko may espace tuuti mu liggéey dina defar équipe am ba nga xam ne fi mu nekk nii tey ñi ñu waroon mën a rencontrer yëpp ci yenn grand yi nekk haut du tableau. Mhm. daje nañoo ak ñoom daje nañoo ak Jaraaf daje nañoo ak euh, Jàmbaar daje nañoo ak AS Douanes daje nañoo ak Teungueth mais on n'a pas été ridicule. Mhm. et pourtant c'est des garçons de dix sept dix huit ans. Ah. donc c'est pour dire que ne formation boo ko gëmee. gëm liggéey bi ngay def. Hmm. yaakaar naa ne mën nga ci yaakaar uh, ndam. Hmm. Talla ci tënk rek uh, ñu tàmbaliwaat dalal public bi muy supporter yi ci stade yi yéen ñii dirigeant ak uh, club yi lan la leen di def. waa man loolu kontaan naa ci mais du ma doon koo xam ne dam ciy ànd ak euphorie. parce que neexul ba neex. feebar baa ngi ci. nañu nañu ànd ak dal. feebar baa ngi ci àdduna bi yëpp. yëpp la nekk. spectacle nag boo koy def. parfois da ngay ñaan yàlla am public parce que spectacle la donc da ngay ñaan yàlla moo am public public bi mooy mën a tax ëllëg sponsor yeeg partenaires yeeg ñëpp mën a ñëw pour jàppale si la mais bu ñu enflammé wu parce que feebar bi yóbbu na ay nit ñu bare mm-hmm. vraiment métti na trop il faut nga vivre loolu pour mën ko xam métti na trop trop trop trop trop mm-hmm. waaw public bi c'est bien nit ñu ñëw seetaan fii génn mu nekk sorti nga ñëw seetaan benn spectacle et tout mais vraiment nañu prudent quoi. Hmm. man bu doon sama sago. Hmm. dinañu xool gën a euh, yokk rigueur bi bi ci war. Hmm. ci stade ci entrée yi limité spectateurs yi quoi parce que. bu ñu naagu daal feebar bi am na fi ah. boo duggee ci yenn famille boo gisoon euh, ravage yu fa def rek. di nga delloo si waat xel tuuti ko mais est-ce que vraiment tamit ubbi bi mais bëgg nañ ko lool mais feebar bi tamit tiital na ñëpp. Mhm, mhm. ñu gërëm la bu baax yow yaay directeur euh, bu communication génération foot Talla Fall. merci Gomis di di jaajëfal euh, invitation bi et puis di jaajëfal auditeurs u Rewmi FM yëpp. Mhm. di di la remercier encore une fois. jërëjëf.